ak ci mitim réew ngeen mën koo am à temps réel ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi kon dañuy ñëw ci kawteef ak musiba naaru laay bi nga xamante ne kon xew na niki tey muy ab l'accident boo xam ne kon wax nañ ne dal na kii di lamin Ndiaye ginnaaw rek ba ñu xam leen ne kon mu nga doon jóge ca retour lancement projet Sénégal vision deux mille vingt cinq deux mille cinquante ca Diamniadio loolee nag kon mën nañ ne euh, nguur gi rek ñoom ñoo ko doon amal ginnaaw kon xibaar yi nga xamante ne jot nañ ko wax nañ ne y a plus. y a plus de peur que de mal ndax rek accident boobee am kon ca autoroute à péage boobee le ñeel ko kon jàmm rek moom moo ci mujj ci fàttali kon moom Lamine Ndiaye moomee ña ngay xamle ne kon min nañ ko bu baax a baax ci àdduna wërngal këpp ginnaaw ba mu doon artiste international daal di def rek lu bare bari ci théâtre sénégalais rawatina kon ca daaray Kocc ba nga xamante ne kon doyen la waaye rek ci professionnalisme am ak rek man liggéeyam gi nga xamante ne mu ngi koy defee liggéeyam. tax na sénégalais yi daal di koy bàyyi xel bu baax a baax a respect bu am solo boo xam ne kon jox nañ ko ko niki tey kon mbir moomee nga xam ne daal na ko ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax rek Euh, mu yam fii te suñu borom daal di koy defal jàmm xéewal sutura ñu ñaanal ko bu baax a baax suñu koy defal jàmm fëgg boppam rek te muccal ko ci yu mel euh, su ko defee yi kon loolu mooy xibaar bi nga xamante ne jaaroon na fi way leen topp Medina TV ci programme yi partage abonné like leneen loo xam ne amaan nañ ko ci information ñu ñëw ci ak yéen ci nu mu gën a yaatoo jërë ngeen